ak mam jaga ñang donc gis nga ko gis ngeen fi ni mel gis ngeen fi ni mel préfet mo nek suñu kanam ni voilà gis nga ko ñi ngi dugg ci ñi ngi dugg ci ci centre bi waaw seen ngeen seen ngeen dox ni mel seen ngeen seen ngeen ko ni mel voilà gis ngeen ko odu vidas yaa ngi nii voilà voilà ñu yor wàllu environnemental ñi ngi ne ñoom itam taxaw xool di tëgg ndékki Thank you. xeer yi doo ko tax a waaye yéen a ngi gis oto yi de yéen a ngi gis oto bi daal si ni ñuy ñëwee xoolal fii même pas cinq minutes am nañ laata oto un deux trois quatre cinq six sept te am na ñaar yu génn léegi xam naa balaa yàgg tuuti su ma mënoon fee vidéo bi même pas cinq minutes danañ fi am lu mu néew néew i euh, vingtaine de oto imagine xool lii voilà monsieur le préfet ak ñu euh, wàllu wàllu environnemental bi ñoo nekk ci biir nii ànd ak euh, police yu fii ci centre bi doon constaté situation bi ñu xam ne moom

alerte bi ci mën nga dundee te dafa war a def moom moo di population bi ko diine la fii ni muy doxee moom kenn mu ne lu ma xew da ngay daw ko suñu wax ñu génn saret yaa gën a yàgg bu ko defee mu woo ñu ñu kii mooy doon sa jaay xam nga fii on parle de quartier dans la ville mais aussi on parle de village parce que village yàgg la ñu dem ba defee quartier ñoom ñoo ñoom ñoo yëre ñu ko conseil la ñu ko diine moom celui-là man ma fay bi moom it maire le président commission environnement ndax naa maire ko yor commune Mbële moo yore forum civil man maa yore AVD parcelle des colonies de la département mais pour woon national de kii pour si combat yi ak ñi fi teew ñëpp waa infrastructure la moom ñu yore ndoxu Mbacke bi ndax dañ ko xam ni déjà si combat yi ñu mën a dañoo def ñëpp lu ñu def bi ñu defee arrêté yàgg na léegi nag dégâts yi nekk nañ ko xarit bi xam naa ne dem ci dem ci suuf si tool yeeg si kër yeeg parce que bu ci yëkkatee comme wax nga ci loolu mënu mënu ko faral te li ñu bëgg daal si commencement bi liñ liggéey liggéey comme dem mooy li ñu wax ni ñu suñu boobu bu ñu yàgg xam nga commune bu kaay nekk en place commune boobu fu ñu ko taxawal xam ne ñu fa nekk si biir waa koñ bi nga xam ne dañ ko dañ koy topp di xam ne daa xaw ma laaj. ah ah. dañ ko génne foofu dañ ko génne génne mu génne ko ci air bi allo. Thank you. Cipiti nah, moo gën. Cipiti moo gën. waaye yéen a ngi gis oto yi de yéen a ngi gis oto bi daal si ni ñuy ñëwee xoolam fii même pas cinq minutes am nañ laata oto un deux trois quatre cinq six te am na ñaar génn léegi xam naa balaa yàgg tuuti su ma mënoon fee vidéo bi même pas cinq minutes danañ fi am lu mu néew néew euh, ay vingtaine de wasan imagine xool lii voilà le préfet ak wàllu wàllu environnemental bi ñoo nekk ci biir nii ànd ak police Mbàkke ñëw fii ci centre bi doon constaté situation bi nga xam ne moom lañ muy situation bu doy waar nag boo xam ne Mbàkke gépp a ngi koy naqar waaw lii moom bëgg nañ mu jóg fii daar daar gis ngeen oto yi gis ngeen oto yi wax ak léegi rek gis ngeen li fi ko ci yoon maam juróom-ñaar fukki at ak juróom moo dem ay tool ñu jóge ci tool yi ci ñëw Mbacke parce que ndox bi ne ni ngeen di gis na foofu mu mën da ngeen a waroon daw na un kilomètre cinq cent actuellement lii ñuy sotti nii da sew ci biir day génn day rogalaat su ne genre lakk la def boo xam ne ndox bu sax ndox bu bon parce que mi ngi ci mi ngi ci bi mi ngi ci bi. moom lu métti actuellement waa mu waaye lii mu lu lépp dafa am lu ñu ñu ko doon ni ba ñuy sañ liggéey bi ñu ko xamee woon fi am kon buñ ko waaye dañ ñoo wax ni usine bi dana dañuy traité ndox mi ñu fa nekk dañ ci mën a béy dañ fa génne engrais da topp it am na produit mu ñu ciy def boo xam ne fertilité loolu yi benn dugub machine la ñu wax nekk fi budget bi wax na trois milliards toll na portugais yi ñoo ko financé loolu lépp dafa rek yoon wañ waroon di jaar nga xam ne sax yoon sax alaloon nañ ñun aw yoon boo xam ne stade dañu waroon di jaar ñu ñëw fi ñu ñëw ñu lu yëpp la bokk wax ne dinañ jël xale yi ñu fiy jigéen loolu lépp dañu war waaye loolu dara ko ci waxoon nañ ni commune Mbacke moo ko Touba bokk ci bokk parce que nombre la camion bi doon jël par jour pour Màkka la biir Touba parce que Touba am nañ seen yëfu bopp te préfet màggal Touba dëkk mais oto vidange commercial la ñu ñu ñuy may askan bi fi mu ne nii quarante mille ngay fay quinze mille nga daan fay quarante mille ngay fay ñu biiral la quarante mille mën ngaa jël dix mille a dem gàtt ba rek commercial loo xam ne suñ Touba lañ ko may naan nag am na lu ñu ci may na commencé ay ñu ñu ñëw waaye soixante dix pour cent privé parce que ñun Mbàkke sax dañ ne woon ren du ngeen am parce que dañuy tëj fii kon la ñu waxoon ñu def ci mbir moomu ak wàllu mooy comité bi ñu gën a indi ay gàllankoor est-ce que danañ am man ñu ngi ñu yóbbu parce que lii moom sëñ bi nañu sóoraale doomu aadama lii sëñ Tuubaa li ko sëñ Muntaxaa yëngal jóge na fi dañ nag luy ràmb ñi ñu war a wax ñoom ñi yor administration bi ak ñi nekk société civile ak ñi yëngu environnement bi ñu doon yëngu ñu wala nag ñun askan wi dañuy dañuy génn laajte seen parce que def nañ ko benn année wax na quatre ans boo fi ab sa bopp def fa ay parapluies ñu bañ ko loolu mën nañ ko askan bi nag mu ëpp doole loo ma dégg yëmul rek mu ku dëkk Mbacke que boo loolu moom. ñëpp danañ xam ñu kat. defe ni fii ma nekk dafay tàmbalee am xamuñ moom loolu moo ko yóbbu. te xamuñ kat gi la xamuñ jëm rek am na ku ma dégg muy wax ni doomu aadama ñu waaye xet gu bon mat mu léegi nag préfet lii wax yaram war naa ko gis bi foo mën a ne ci àdduna lii xanaa wax fii moom dañ koy arrêté màggal Tuubaa gàmmu lépp ci parce que tamit santé moo war a gën a lépp suñu tubaab set bi nga ñun di dem na saako ñaari na set dafa bokk ci kër yàlla ñun dañuy yëngu ci environnement ab damay xam nañu lool fii dañ ne woon dañ koy reboiser def ci ay garab def ci ay pépinière lépp waxoon nañu waxoon nañu lool waaye dara yow administration nga yor toujours yow da ngay jéem a xool noo noo noo liggéey sa waaw même maa gën a baax maa gën a nga tontu ah baax boobu maa gën a nga tontu. am na leneen lu ma jaar am na leneen lu ma def. donc donc moom administration rek nii rek ñoo mën a doxee yow donc nii rek ñoo mën a doxee waaye man ñun duñ nangu ñu bokk ci Sëñ Tuubaa Maam Mor Jaara Sëñ Tuubaa ñoo bokk ci lii nga xam ne bu ñu ko defee en tout cas yow ko am. Bravo.